أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسول فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا عباد الله اوصيكم ونفسي المقصره المذنبه بالتقوى الله عز وجل جعلنا الله وإياkum min almuttaqin mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki julli di sunu xutba tey mooy mbëggeel cofeel gi sahabatul kiram bëggoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu gam-gamle ñaari bëgg-bëgg yi nun ndax ni nu bëggee yonent bi ndax noonu la sahabatul kiram bëgge woon yonent bi wala ñoom nañu bëgge woon yonent bi ndax nun bëgge nañ ko yonent bi ibnu abbas mu ngi nettali ci waxu yàlla tabaraka wa taala bi mu wax ida jaa nasrullahi walfath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaja fasabbix bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kaana tawwaaba ibnu abbas nee na keroog ba saar bi wàccee lamma nazalat قال محمد صلى الله عليه وسلم يا جبريل نفسي قد نعيت keroog ba saar bi wàccee sunu yonent alayhi salaatu wassalaam dafa gestu xool Jibril ne ko Jibril mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ne ko yàlla tàgge na ma sama bopp saar bi ma dégg li ma ci dégg mooy dañ maa tàgge sama bopp mooy mission bi jeex na damay delluwaat ci yàlla tabaraka wa taala qaala jibril alayhi salaam al axiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa jibril daal di tontu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko xanaa xamoo àllaaxira gëla ngay dégg te fa nga jëm moo gën àdduna bis boo fa demee suñu borom subhaanahu wa taala dina la jox ba nga gërëm ba nga d'accord ba nga kontaan fa amara rasul sallallahu alayhi wa sallam bilaalan an yunaadiya bi salaati jaamia yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bilaal noddal bilaal nodd sahaaba yi dajaloo ci jàkka ji muhajirun ak ansaar yonent bi julli ak ñoom ba pare yéeg minbar fa hamidallah azza wa jal wa asna alayhi summa xataba xutba wajilat minha alqulub wa bakat al uyun bi yonent bi jiitee julli gi ba pare dafa yëkki minbar bi xutba xutba boo xam ne rongoñ tuuru na xol yëpp jàq nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ne ayuha nnaas ayu nabiyin kuntu lakum yéen nit ñi ban yonent laa nekkoon kum yéen bi ma yàlla yónnee def ma ab yonent ban yonent laa nekkoon ci yéen fa qaalu jazaka allahu xayran jazaka allahu min nabiyin xayran faqad kunta bina kal abi rahim wa kal axi nasih al musfiq addayta risalati llah aza wa jal wa ablagtana waxya wa dacawta ila sabili rabbik bilxikmati wa mawcizatin xasana fa jazaka allahu anna afdala ma jaza nabiyan an ummatihi ban yonent laa woon ci yéen bi ma yàlla yónnee sahabatul kiram ne ko da ngaa mel ne bi la yàlla yónnee ni nga meloon ak ñun yaa ngi mel ne woon bàyyi ju ëmbal ay doomam yërmande yaa ngi nekkoon ak ñun mbokk buy laaya biir ay mbokkam mission bi la yàlla yónni woon yépp joxe nga ko lépp mottali nga ko ba mu mat jottali nga wax yu yàlla tabaraka wa taala woote nga nit ñi jëme leen ci yoonu boroom bil hikma wa mawizatan hasan bi ngay woote da nga ci ànd ak xereñte waaye da nga ci ànd ak waaraate bu rafet yal na nu la yàlla fayal ngën gi fay ba mu fay bépp yonent bu mu yónni woon ci xeetam keroog ba yonent bi laajee sahaaba yi lii la ko sahaaba yi tontu fa qaala lahum maasara almuslimin mu ne leen yéen jullit ñi unaasidukum billah wa bi haqi aleykum maa ngi leen di seedaloo ci yàlla ak àq gi nga xam ne moo dox sama diggante ak yéen képp koo xam ne ci yéen tooñoon naa ko na ñëw fayu képp koo xam ne ci yéen yoral naa ko alal na ñëw ma fay ko balaa ëllëg yowmal qiyaam bés bi nga xam ne dërëm du am pour ñu fay kenn sahaaba yi ne tekk jàkk ji ne tekk kenn tontuwul yonent bi baamtuwaat kàddu gi yéen jullit ñi képp koo xam ne ci yéen yoral naa ko bor na ñëw ma fay ko balaa ëllëg yowmal qiyaam képp koo xam ne tooñoon naa ko na ñëw fayu ku ma dooroon na ñëw fayu ku ma waxoon wax ju bon na ñëw fayu ku ma yaral alal na ñëw ma fay ko jàkk ji ne tekk kenn waxul yonent bi baamtuwaat kàddu gi waay waay ku ma yoreel alal na ñëw ma fay ko ku ma tooñoon na ñëw fayu kenn daa di waxul dara fa qaama min bayni almuslimin cheikhun kabir yuqaalu lahu ukaasata ñetteelu kaddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu daanoo rek benn góor gu màgget ca digg mbooloo ma daal di jóg taxaw commencé xuus sàppe yi di dagg sàppe yi ba yegsi ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waajaa nga tudd ukaasata waa ji ne ko yonent mu ne ko labbayka mu ne ko man tooñoon nga ma damay fayu yonent bi ne ko lan laa la defoon mu ne àndoon nañu ak yow benn xare bi ñu xaree ba xare bi jeex yàlla may ñu ndam dimbali yonentam ñuy ñibbi sama gëléem bëgg a raw sa gëléem bi ma ñëwee ba dend ak yow ma wàcc gëléem gi pour fóon say tànk yaa ngi yoroon benn bant nga daal di ma koy jam ci sama biir bi ci sama mbagg mi sama wet yi xaw ma yaa ko tey xaw ma teyoo ko waaye comme yow yaa woote ne ko tooñ na ñëw fayu te tooñoon nga ma damay fayu tey jàkk ji daal di riir sahaaba yi daal di yuuxu yonent bi ne ko xam nga ne man mii maa ngi lay seedeel ci yàlla ne duma tooñ kenn te di ko tey teg maa baal mu ne ko déedéet damay fayu yonent bi ne bilaal mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ne demal kër ga boo demee nga fëgg néegu Fatima bant boobu muy wax ne moom laa ko gaañe woon bant baa ngi fa soo demee nga indil ma ko Bilal daal di yenu ay bopp ay loxoom di yuuxu daan ne ci yonent yàlla bi lañ war a fayu tey yonent bi yàlla yónni woon moo woote ne ñëw leen fayu Bilal ba muy dem di jëli yat bi dafa yenu ñaari loxo yi di yuuxu ba mu demee ba yegg néegu Fatima mu fëgg Fatima ne ko kan la mu ne ko Bilaal lu xew mu ne ko sa papa nee na nga jottali ko yat yi mu teg foofu benn bi muy yor su xare amee wala buy xutba jumaa wala buy xutba korite ak tabaski Fatima ne ko lu xew tey xeex amul aj amul te ci ñaar yooyu la ko daan yore tey aj amul xeexuñu mu ne ko yonent bi moo woote fayu am ku mu gaañoon ci bant bi koo koy fayu tey Fatima ne ana Ousseynou ak Assane ñu ne ñoo ngi nii mu ne dem leen waa ji bu waree fayu ci yonent bi na fayu ci yéen ñaar ndax mooy seen maam daanaka benn la dem leen mu fayu ci yéen bu mu laal yonent bi Ousseynou ak Assane ñëw taxaw ànd ak Bilal ñu indi yat bi jox ko yonent bi jàkka ji di yuuxu sahaaba yi di sab waa ji lan la nar a def yëkkati bant di ko dóor yonent ñoom loolu lañ bañoon de yëkkati bant di ko laalal yonent ñun tey lan la ñu def lan la ñu dessiné yonent bi lañ ko lan lañ ko caricaturé lan lañ ko wax film yi ñuy dawal lan lañ ci def yonent bi ñoom bant lañ bañoon mu laal yonent bi mbokk yi Bilaal ne yonent bi ne Fatima sa baay de yuwaddiu diin wa yufaariqu dunya message bi ko yàlla joxoon moom la jeexal ci diine te day génn àdduna waaye wa yu'ti alqisaas min nafsihi woote na ne nañu fayu ba yat ja- yat bi yekkee yeggee ci jàkka ji abubakar ak umar jóg taxaw radiyallahu anhuma ñu ne yaa ukaasata ñëw yow ukaasata ñëwal fay ci ñun yow xam nga ñu may abubakar kii mooy umar tànnal kenn ci ñun ñaar koo bëgg a fayu nga fayu yenent bi ne leen déedéet toog leen man mi maa ko tooñoon ci man lay fayu ukaasata ne leen yéen seen yoon nekku ci kii moo ma tooñoon ci moom lay fayu abubakar demal nga toog umar demal nga toog makaana kuma dem leen ngeen toog yenent bi alayhi salaatu wasalaam daa di jege si mu ne ko déedéet ali daa di jóg taxaw ne ko fan la la ko dóoroon mu ne ko fii ci sama biir bi ali daa di simmi mbubam ne ko dóoral fii nga fayu ci man ndax kii maay moom mooy man mu ne ko déedéet kii rek ci kii rek laay fayu ndax moom moo ma tooñoon waaw fa haza zahri wa batni yenent bi daa di yëkkati mantu bi mu soloon daa di teg ci suuf saxaaba yi yuuxu ñëpp di sab jàkka ji mel ni dafa am ku fa dee lu tax kii di fayu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ne yaa ali iqat dama nga toog faqad arafta allah aza wa jal faqad arafa allahu aza wa jalla maqamaka wa niyatik ali dama nga toog yàlla xam na sa place yàlla xam na sa yéene Ousseynou ak Assane jóg u kaasata ne leen seen yoon nekk ci toog leen ay sën ngeen ci seen maam laay fayu yenent bi simi mantu bi ne ukaasatu bismillah mu ne ko déedéet ci yaram nga ma ko defoon ci yaram laa la koy def foog foog bant bi ci sa yaram lay laal du laal sa yére laa ilaha illa allah fii nag saxaaba yi mënatuñu téye seen bopp yenent bi di simmi yéreem ci biir jàkka ji di aj mantoom yaramam di génn ñu ko ciy dóor bant jàkka ji yuuxu mu ne yonent bi darabta nii dóor nga ma fii bat nii ci sama biir fakshif an batnik dindi sa biir ma dóor la ci ndax foofu nga ma dóor wasaaxal muslimuuna bil bukaa julli ñi daal di yuuxu ay jooy ñu ne ukaasata xanaa xamoo kii ah kay mooy yonent bi yàlla yónni waa léegi lu tax li mu ne moom moo wax nañ ñëw fayu xanaa bi mu koy wax nekku leen fii ah kay waa léegi lu tax ma bëgg a fayu ngeen di wax te moom moo ko wax ñu ne mënoo ko woon baal mu ne baalu ma ko moom moo ne ñëw leen fayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di yëkkati yéreem ndeke ukaasata dafa amoon lu mu bëgg dafa amoon luy yéeneem dafa amoon luy mébétam bi yonent bi yëkkatee yére bi mu gis yaram baa ngi weex sallallahu alayhi wa sallam mu daal di plongé ci biir bi daal di koy féen daal di koy fóon ne ko fidaaka ummi wa abi damaay bëggoon sama yaram laal sa yaram sama yaram laal sa yaram loolu dong laa bëggoon sama yaram laal sa yaram jàkka ji yuuxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ne tuuba tuuba nilta daraja al ulya wa murafaqatu rasul sallallahu alayhi wa sallam yow ukaasata am nga martaba bu rëy bul fàtte ne ñaanaloon naa la ci juróom-ñaar fukki junni yuy dugg aljanna te duñu bi xayri xisaab tey jii am nga beneen maqaama bu ci tegu mooy am nga daraja yu kawe yi ëllëg fu ma nekk ci biir aljanna da ngay nekk sama wet fa marra fa marida rasul yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi xabaar boobu amee ba pare xew-xew bi yonent bi ñibbi këram dafa feebar juróom-ñetti fukki fan ak juróom-ñett la yonent bi tawat nit ñi di ko seeti këram yonent baa ngi juddu altine yàlla nga ko yónni altine mi ngi génn àdduna altine fa ma kaana fi yowmi l ahad siqlun fi maradihi fa azina bilal bi azan summa waqafa bi baab bil baab fa naada assalaamu alayka ya rasul allah wa rahmatullahi wa barakaatu yonent bi feebar fukki fan ak juróom ñett sahaaba yi di ko seeti këram bilaal nodd gisul yonent bi mu ñëw ba ci bunt bi nuyoo yonent bi daal di koy dégg dégg baatam fatima ne ko yaa bilaal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tawat te tawat bi dafa metti sibburu na sibburu boo xam ne yaram bi tàng na tàng boo xam ne Fatima moo toog ci wetam di wañ musuwaar di teg ci bopp bi waaye saa yu wañee ba teg ndax tàngaayu yaram bi musuwaar bi day wow yonent bi naan laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat sell ñeel na yàlla dee moo metti ni kenn ci ñun di sukuraatee yonent bi ñaar la ko yàlla branché léeg-léeg mu ne laa ilaha illa allah allahumma hawwin alayya sakaratil mawt sell ñeel na yàlla yàlla yàlla na nga oyofal sama mettitu dee bi mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nodd nañ mënta génn ñaari sahaaba ali ak uqayl daal di dugg ci biir fekk sahaaba yi sàppe nañ yonent bi ne leen na aboubacar jiite nit ñi aboubacar ni siddiq taxaw ci kanamu nit ñi waaye place bi tuuti na ci moom xat na ci ndax place bi ki fi doon taxaw moom mënu koo remplacer yonent bi toog ba ci kanam ñu daal di koy génne ci néeg bi jàpp ci mbagg ndeyjoor bi ak mbagg càmmoñ tànk yi di direeku mënatul taxaw ñu ngi ko jëme ci jàkka ji sahaaba yi yëg ne yonent bi nu ngi koy indi ñu xar sàpp bi ci digg ñu daal di koy jàllale mu ñëw ba ci wetu Aboubacar fi mu taxaw mu taxaw ci côté ndeyjooram Aboubacar bëgg a dellu ci ginnaaw mu daal di koy duut baaraam ne ko nii mottalil julli gi Aboubacar jiite yonent bi di xool ci moom sahaaba yi di xool ci yonent bi Aboubacar julli jiite julli gi julli goo xam ne ba mu koy jiite keroog ay jooy kese la kenn xamul lu mu jàng ndax yonent bi da leen di tàggu ba ñu sëlmalee yonent bi gestu xool leen Abdullah ibnu Mas'ud moo doon nettali nee na keroog yonent bi xool nañu xool goo xam ne kanam gaa ngi leer moo ngi mel ne ay feuilles kaamil nee na yonent bi xool ñu xoolu tàggu waaye mu gis ci kanamu sahaaba yi bàyyi na fi ay nit yoo xam ne yar na leen ci tawxiid ci kennal yàlla tabaraka wa taala yar na leen ci yenu diine loolu tax jullit foo munta nekk da nga war a yenu xammu diin jafe-jafe diine da nga ko war a yenu du feebar du ñàkk du sonn moo lay tere yenu mbirum diine Yuusuf tëj nañ ko ci kaso mu yenu coono diine Yaquba jooy na ba xubi daas egg ci sukkuraatul mawt yenu coono diine Ibrahima sànni nañ ko ci safara mu yenu coono diine Nuuh woote na alfu sanatin illa xamsina aman mu yenu coono diine yonent yàlla muhammad nekk na ci sukuraat munta taxaw waaye mu ngi yenu coono diine ñëw na toog ci kanamu sahaaba yi di leen xool di xool lim fi bàyyi ëllëg mu ne sahaaba yi bàyyi naa leen junni at yéen a ngi nii junni at dinaa leen bàyyi ñeenti téeméeri at nii ngeen di mel kenn ci yéen du takk gàllaaj kenn ci yéen du jaamu xërëm kenn ci yéen du ñaan naan yàlla ak ñeenti téeméeri at nii ngeen di mel ci tawxiid ngeen di nekk su ñeenti téeméeri at yi jeexee juróom benni téeméeri at dina am ci yéen ñoo xam ne danañ baax waaye garab gi ma fi bàyyi woon dina am dëkk mooy kon junni at dina am ñu baax ak ñu bon waaye mu ne bu loolu jeexee jeex na bu loolu jeexee jeex na te ba mu koy wax asnada zahrahu ala judraanil kaaba fa baka ixwatal iman kon feebar du tere nit mu yenu coono diine yonente alayhi salaatu wasalaam dundam yëpp ci ñun la ko jeexal pour ñun ñu texe pour ñun ñu dugg aljanna laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminin raufur rahim yàlla nee na yónni naa ci yéen yonent boo xam ne seeni jafe-jafe yéen seeni metit daf koy naqari daf koy yenu yonente alayhi salaatu wasalaam daawul tëdd nelaw lu dul sahaaba yi pour ñu nekk ci jàmm loolu tax mu ne kullu ummati yadxuluna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasul allah qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba xeer bi yëpp danañ dugg aljanna ba mu des ku bañ saaba yi ne ko ndax nit dina bañ a dugg aljanna mu ne waaw nu muy demee mu ne ku ma bañ a topp yow yaa bëgg a yow yaa bañ a dugg aljanna ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yow yaa bañ a dugg aljanna aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayrahu مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله mbokk yi ci yàlla sunu jàngat mooy ndax nun woote gi ñuy woote ne bëgg nañ yonent bi ndax sax na ci sunuy xol wala du dëgg ndax dëgg-dëgg xam nañ yonent bi ndax nit soo xamul mbir mënoo koo bëgg soo déggee waajaa ngay rey boppam ca soxna sa wala soxna saa ngay rey boppam ca waaja wala waajaa ngay rey boppam xoolal sunu doom yi nga xam ne tey ñoo jël gaal yi di dem Europe pourquoi ñu bëgg a dem Europe parce que dañoo xam Europe dafa wuute ak fii lan la ñuy wax ku dem Europe da ngay tekki loolu tax foofu gënal leen fii ba ñuy jaral leen ñuy dee nga gis ku dem eggul ñu delloo si waat ko wala gaal gi këpp mu rëcc ñu génnewaat ko ñu koy laaj na ko waaw yow ndax da ngay delluwaat nga dégg mu ne wallahi damay delluwaat lu ko jaral parce que xam na fa mu jëm ñun dañ ne bëgg nañ yonent bi te xamuñu yonent bi nit mënta bëgg lu mu xamul ñun dañoo xamul yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla subhanahu wa taala moom moo xam daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dafa respecté yonent bi bu musta jaar ci turam jàng leen alquran yëpp ba mu daj 114 saar yi am na yaa nuux am na yaa ibrahim yaa yahya yaa yusuf yaa muusa yaa nuux ya yonent yëpp yàlla jaar na ci seen tur ne eh diw jaar ci turam yaa muhammad amul ci alquran alquran fi ñu jàng yëpp hatta yàlla buy wax turu muhammad da ciy teg dara yàlla du sàllawluwul muhammad ne ko muhammad rek yem fa déedéet aaya alquran bi yàlla wax muhammadu lu mu ci teg rasulullah yasin wal quraanil hakim innaka la min al mursalin taaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها النبي gis nga jaarul ci yaa Muhammad amul ci alquran ittaqillah yaa أيها النبي لما تحرم تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده yàlla dafa wekk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne moo ko sàkk dégg leen lu mu wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna yusalluna ala man ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu ku mel noonu tey di sunub yonent ñun ñu réere ko xamuñu ko ba ñeneen di ko jal jaltee di ko fowee di ko caaxaanee ñun ñeneen gënal ñu yonent bi fi yonent bi waroon nekk ci ñun ñeneen nekk fa occupé ko jullit bi fan la tàmbalee ak muhammad ñun fan la ñu tàmbalee ak muhammad keroog ba nga juddoo ñu woo imaam mu ñëw di la tudd lan la def ci say nopp noddu ak li xaam noddu ak li xaam turu kan moo ci nekk imaamu jàkka ji papaay xale bi maamam yaayam sëriñam bi imaam bi waxee ci turu xale bi noppi xale bi ashhadu an laa ilaha illa allah lan la ci teg ashhadu anna muhammadan rasulullah julli jot léegi bu ñuy julli ñuy noddu bilaal bu muy noddu léegi léegi turu kan la wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah léegi ñuy julli di taaya kenn ku nekk ci ñun joxoñ sa baaraam bi da nga ko yëngal wala da nga ko téye bi nga waxee ashhadu an laa ilaha illa allah loo wax ashhadu anna muhammadan rasulullah xoolal fii nga jaar ak yonent bi yëpp depuis nga nekk liir mu des bu mag bi nga dugg bàmmeel nga faatu ñu dugal la ci morgue bi simmi la ba nga set sang la sang la yeew ba mu dëgër teg la ci kanamu jàkk ji jullee la yóbbu la ci bàmmeel yi gas ba mu xóot daat lay dugal nit ñi ñibbi inna al mayit ida wudia fi qabri wa tawalla an wa asaabu ataahu malakayn ku faatu ba ñu dugal la ci bàmmeel ba nit ñi ñibbi yàlla yónnee na ñaari malaayika ñu yëkkati la nga toog ci biir bàmmeel ñu ne la maaza kunta taqulu ala haadha al abdu muhammada loo doon wax ci waa jii di muhammad kii kii loo doon wax ci moom bi nga nekkee ci àdduna léegi ne kooku xamoo ko buñ ñu laajee Messi xam nañ ko buñ ñu laajee Chris xam nañ ko buñ ñu laajee Mané xam nañ ko buñ ñu laajee mbër yi xam nañ leen buñ ñu laajee waykat yi xam nañ leen buñ ñu laajee tiyaatarkat yi xam nañ leen buñ ñu laajee sunuy kilifa diine xam nañ leen suñ ñu laajee muhammad maaza kunta taqulu ala hadha al abdu muhammada nga dégg waaji ci biir bàmmeel mu ne ah ah la adri la adri wooy wooy xaw ma ko xaw ma ko malaaka yi ne ko xamoo yàlla boo xam ku xam yàlla bum la ko wax yonent bi nee na waa jooju fa yudrabu bayna uznayhi bi mitraqa min hadid fa yasiihu sayhatan yasma'uhu man yalihi illa al insi wal jinn yonent bi nee na waa jooju danañ ko dóor benn bolde diggante ñaari nopp yi bolde boo xam ne asamaan ak suuf kenn attanu ko danañ ko ko dóor mu yuuxu yuuxu boo xam ne ñëpp a koy dégg ba mu des nit ak jinne lu tax ñu koy dóor parce que xamul muhammad wallahi al azim allazi la ilaha illa huwa ñu ëpp ci ñun dañuy gàddu seeni basang di ñëw jima waaye dinañ leen dóor ci biir bàmmeel parce que xamuñu muhammad muhammad du ku ñuy réere du ku ñuy fawe suñu dund yëpp dafa ànd ak muhammad soo nee laa ilaha illa allah luñ ciy teg muhammad rasulullah mbokk yi ndax avion avion bu amee benn laaf ndax dina naaw avion bu amee benn laaf ndax dina naaw ndax bi ngeen commencé di dund ba fii ngeen toog mës ngeen gis avion buy naaw yor benn laaf ñaata lay am ñaar benn bi mooy laa ilaha illa allah beneen bi mooy muhammadan rasulullah ñaar rek foog ñaar ñaar yooyu ñooy ànd loolu lu muy tekki mooy yàlla rek la ñuy jaamu muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla yéen a ngi nii di julli juma ñaata rakka ñaari rakka pourquoi julli wu leen ñeent parce que muhammad ñaar la julli woon ku julli ñeent amoo julli yéen a ngi julli timis ñaata ñett ku julli six wala quatre sept amoo julli parce que muhammad ñett la julli woon loolu tax ci islam dafa am surutu qubulul amal sart yi yàlla dina ngoo jëf bu leen yaakaar ne da ngay jëf rek yàlla jël déedéet soo jëfee ba pare yàlla day indi nattukaay bi teg ah. soo jëfee ci l'islam ba pare jëf nga pare nga yàlla day indi nattukaay bi teg blanche bi lii mooy balance bi surutu qubulul amal lii la awalan al iman bi njëkk yàlla day xool yow mi jëf-jëf ñi ndax gëm nga wala gëmoo ku gëmul yàlla loo def da ngay perte wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura ku gëmul yàlla ki yéeféer yàlla du nangu ay jëfam innama yataqabbalu llahu min al muttaqin ngëm moom mooy premier soo gëmul yàlla loo def ja- bu yeboo nga tabax ay jàkka bu yeboo nga defar ay teen bu yeboo nga defar ay marché bu yeboo nga defar ay hôpitaux bu yeboo bu yeboo da ngay perte soo gëmul yàlla ñaareel mooy al ixlaas yow mi jëf-jëf ji lan moo tax nga jëf ko ku tax nga def ko yàlla tax wala da ngaa bëgg ñu wax la al ixlaas sellal ala lillah diinul xaalis wa ma umiru illa li yabudu llah muxlisin lahu ddin annaasu kulluhum halka illa alaalimun walaalimuna kulluhum halka illa alaamilun walaaamiluna kulluhum halka illa almuxlisun wal muxlisuun ala xatarin azim sallallahu alayhi wa sallam nee na àdduna bi ñëpp alku nañ ba mu des ñeenti nit ñi jàng ñoo ci des yonent bi ne ñi jàng alku nañ ba mu des ñi jëfe liñ jàng yonent bi ne ñi jëfe liñ jàng alku nañ ba mu des ñi sellal yonent bi nee na ñii sellal ñu ngi ci danger ñii sellal ñu ngi ci danger ndax wóorul ndax danañ dem alaaxira yóbbaale sellal googu ñetteelu sart mooy mutaabaatu rasul yow mi jëf-jëf ji ndax def nga ko ni ko yonent bi defee tey koo wax sama ndey sama baay sama maam ñun nii la ñuy fekkee sunuy maam nii lañ def noonu lañ doon def man nii laa fekkee samay kilifa nii lañ ko doon defee nii laa koy defee ñu ëpp ci ñun au lieu ñu defee mbir mi ni ko yonent bi defee koo wax kaay defee ko ni mu ne non kuy ngénte nu la neex ngay ngénte kuy céetal kuy suul kuy kuy kuy ku nekk nu la neex nu la neex nga koy defee suñ la nee kaay nga defee ko ni ko yonent bi waxoon nga ne non loolu affaire u ibaadu la quoi man duma ibaadu affaire u ibaadu dafay am sunna la du ibaadu sunna mooy def li yàlla wax ak yonent bi waaye yéen ibaadu yi kontaan leen comme bàyyee nañ leen li yonent bi moom sant leen yàlla comme bàyyee nañ leen ko kenn bugg ko yéen rek a ko bëgg jël leen ndax moom la ñuy laaj ci ëllëg yowmal qiyaam ku ko fa indiwul perte nga ay nit a ngi nii yoo xam ne dañoo waaxu dem ci dexu yonent bi bëgg a neen bëgg a naan ndeysaan yonent bi xool leen naan malaaka yi ummati ummati ñii sama xeet lañ ñii sama xeet lañ malaaka yi ne ko déedéet ñii nañ fi sori ñii yokku nañ wàññi nañ li nga leen indiloon dañ koo yokk ñeneen ñi dañ koo wàññi malaaka yi ne leen bu'dan yonent bi ne leen suxqan kon nañ fi sori ku indiwul ëllëg yowmal qiyaam li yonent bi indi da ngay perte moo tax ëllëg yonent bi dañuy laaj ndax yow ni nga defoon jëf ji nii la ko yonent bi defee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jullee ba pare dafa sëlmal jàkkaarloog sahaaba yi ne leen sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee ma julli boo demee nga julli beneen façon julli wala nga woor beneen façon woor wala nga aj beneen façon aj wala nga def leneen lu yonent bi defuloon da ngay perte yowmal qiyaam beneen ba ca tegu mooy nga def ko ci waxtu wi ko yonent bi defoon waxtu wi ñeent yi mooy sart yi yàlla di nangoo jëf kenn ku nekk ci ñun fii tey soo bëggee xam say jëf ndax yàlla nangu na ko xoolal ndax ñeent yi mu ngi ci ndax gëm nga yàlla ndax bi ngay jëf-jëf ji yàllaa tax ndax toppandoo nga ko yonent bi ni mu ko defee woon ndax def nga ko ci waxtu wi mu ko defee woon aji màkk ban waxtu la heure bii ndax dañuy aji màkk soo nee damay aji màkk ñëwaat ndax foofu day am buuxante ma teel a dem ñëwaat dem nga màkk de waaye aji woo màkk heure bi soo wooree weeru koor nga ne weeru koor bu ñëwee day métti ñëppay woor déedéet bàyyil ma dóor ko ni mu daanu rek bu gaa yi woor weeru koor fekk man wooroon naa ba pare kenn du la ko nangul parce que dafa am sahru bu tudd ramadan moom la ñuy woor gis nga waxtu bi foog mu jot ñeent yi mooy sart yi yàlla di nangoo jëf nañ leen góorgóorlu ñu xam sunu yonent nañ leen góorgóorlu ñu roy sunu yonent nañ leen góorgóorlu ñu matt sunnaam ci sunuy dëgëj aleykum bi sunnati da ko dénkaane wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyin addu alayha bi nawajiz yonent bi nee na matt leen ko ci seen dernier bëñ sunna dañ koy matt ci dernier bëñ kenn du ko sex kenn du ko log yal na nu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba allahumma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تسمد بنا الآدى ولا حاسدا اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكده يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله